constitution ni ko ku am peut-être respecter sa constitution mais li nga nak koy euh, rek Sénégal ak Gambie dafa profond dafa nek bi nga xamni ñaari dañu war di lu bari d'autant plus que yow xam nga ni ko Macky Sall président de la République premier génnam bu njëkk première sortie bi mi ngi ko def Gambie kooku dafa am signe dafa wane déjà fi mu teg Gambie ak fi mu teg le le président Yaya Jammeh man sama bopp di wax yow Yaya Jammeh recevoir na ma ñett yoon trois fois recevoir na ma dalal ma bu baax wax ma sax relation écrivain yi ba ñu nekkoon ci projet di def benn anthologie ba nga xam ne ñaari réew ñoo ko doon bokk ñaari écrivain yi. ñaari association wu écrivain keroog bi mu ñu mujj recevoir ñaari association gambienne la indi writer ak suñu bos daal ñu boole leen ngeen bind benn téere téere boobu moom moo ko waroon préface y a quinze jours de ça motu sax quinze jours bi ñu ñoom euh, écrivain gambien yi woowee ni nañ leen ko envoyé pour ñu war ne ko présenté ko yaay Jammeh man dama wax ni donc loolu man am naa ci lu ma remettre parce que diggante bi dara def ci xajul lu ñaaw xarit ci lu rafet rek moo ci war a xet moo tax mu foog ni il faut que président Yaya Jammeh waxtaan ak frère am waxtaan ak mbokkam euh, le président Macky Sall euh, pour que euh, xëy na loi su nekk ni ñu koy appliquer waaye mu def en quelque sorte que loolu ñun ñoo ko koy ñaan parce que man dama ne woon bu ma amee man maay dem foofu ñaan ko ko mu jéggal ñi nga xam ni vraiment Euh, condamné la leen parce que xam nañ ni mën na ko xam nañ ni aussi ci xolam la xam nañ ni ci ci dimension la parce que moom panafricaniste la ñun bañ fa demee aussi wax nañu ni moom du Sénégal du Gambie du Togo ñëpp la boole donc africaniste la donc loolu bu amee suñu diggante ñaari réew yi ñu foog ni ñun writers writers yi nga xam ni daf ñu xam bu baax a baax am ak ñun ay relation yu rafet ñu remercier compte yu bari

parce que ñooy bind li xewoon démb moo tax ñu génne sunu histoire boo gisee samay œuvre yëpp damay bind ci histoire démb di bind pour tey parce que ñun témoin dañu fekkee tey di bind pour ëllëg parce que loolu la génération yi ñëw di fàttaliku moo tax ñun ñu koy ñaan moom am na droit appliquer loi am waaye ñu koy ñaan nag ci diggante Sénégal ak uh, Gambie mu dolli vraiment loolu ñu ko doon ñaan mu jéggal ñi nga xam ni perte condamné juge jugé nañ leen condamné leen waaye mu jéggal leen ndax diggante bi gën a rafet ndax aussi li nga xam ne ñun ñu ñaan ko ko te nekk ay nitam ñu mu xam respecté leen mu may ñu loolu ñun xam nañ ni euh, relation bi Sénégal mënul vivre sans Gambie Gambie mënul vivre sans Sénégal ba ñu toogee mu mujj recevoir dama ne ko président bi may jëkk ñëw Gambie c'était en 64

aussi ci ci Bilal dinaa Bilal président Abdou Diouf daf ma yónni ci moom ma dem ci moom wan ma ko mu laaj ma ma jox ko version anglaise bi bu Bilal Seydina Seydina Bilal donc loolu yëpp moo wane ni ñun mbokk lañ dara mënuñu taxale ñaari réew yi dañu nekk benn ñaari peuple yi benn lañu ak ñaari pour yu wuute ci tudd Gambie ci tudd Sénégal muy li nga xam ni colonialisme moo ko def c'est le fait colonial waaye comme ñun ñii léegi ku ci nekk am na sa indépendance rek ñu garde nag li nga xam ne moo ñu boole muy deret bi muy parce que muy muy muy euh, diine bi euh, muy aada bi man daal loolu laa amoon bu baax di ko ci wax di ko dolli ñaan loolu nga xam ni suñu président ñaan na ko ko euh, ñun bindkat yi ñun ñaan ko ko te ñun dañu ñëwoon pare nañu ñun pour dem seeti ko

moom xam euh, xam na ko parce que bañ fa mujjee dem sax war nañu ay article waaye kooku dafa wane ni ku bàyyiwul bàyyiwuñu Macky bàyyiwuñu wuñu ñu fi newoon hmm. Ablaye Wade ak ñeneen ak ñeneen donc pré pré presse la bu libre bi nga xam ni ñun amuñu si benn amu ci benn pression benn président mënul de pression ci ñoom du côté boobu moo tax na euh, seen rôle ak rôle média d'état boo ko seetloo nga xam ni média d'état yi aussi xëy na loolu sax possibilité am na ñu am ay relation ak yenn euh, état yi ba nga xam ni euh, dinañ éviter euh, yenn article yi waaye presse bi en général dañuy am liberté wu bind ñun nag dara du ñaaw vraiment du jóge ci ñun di dem ci feneen te ñaan nañ ko aussi bon vraiment pour diggante bi relax ko parce que ñu mënul tàqal ko dañuy ànd ëllëg ak si ñu mën a toogal te xoolante mais daal man loolu laay ñaan

réew bu nekk na am say loi sa constitution di ko appliquer waaye du tere ay réew yi nag am ay particularité parce que ni ma ko waxee ci début Gambie ak Sénégal amul beneen euh, euh, beneen ñaari réew yu mel noonu ci monde bi ci monde bi amul ñaari réew yu mel noonu ci monde bi amul même boo jëlee Congo ñoo bokk ñoom fleuve bi waaye ku ci nekk yaa ngi si fiir bi bii dañuy jaxasoo du ñu jaxasoo loolu laa amoon vraiment Malick euh, di ci di ko ci wax. waaw euh, di encore ñaan le président Yaya Jammeh euh, nga xam ni day man xam naa ko bu baax a baax toog naag moom bu dul benn du jaar ba ma fa jëkkee dem maag fa Mamadou Traoré Diop secrétaire général ñoo àndoon jour boobu dafa doon.